ayca mercredi 31 euh, mars 2021 yàlla mi ñu sàkk di boo paree nga expliqué lan nga doon wax ni ci suuf boo ko expliqué wul man dinaa ko wax ndax du nettali waaye lu ma yëg mu siiw ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, mbokk yi amati mbégte ak euh, bànneex ñëwaat euh, encore une fois di jarawaat ak yéen ci seen matinal bi la di petit déj jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñu safoo sunu ay programme yi Walfadjri TV la voix des sans waaye rawatina yéen ñu jël petit déj def ko seen préféré ah ñu ngi leen di sargal bu baax a baax di bàyyi xel rek képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci jafe-jafe yàlla na la ko suñu borom teggi la soppi ko mu nekk mbégte incha allah ah, mbégte bi saawaan baawaan fépp ci àdduna bi incha allah alors comme euh, euh, tous les mercredis rubrique yi fi daan am rek ah moo fi fas yéene am incha allah ñu dox ko ci jàmm jeexal ko si jàmm ak salaam euh, mois de mars tey lay jeex ah tey la 31 mars waaye bu jeexee sax man damay continuer daal def lu mu saf ñu sargal jigéen ñi ba mu bëri doole Balde Banna Balde Fulaadu Cum luk lu net tey sa kala ndax ay ca <laughs> yaay yaay xale yi chéri Thier. yow lay def ah xam nga sa bopp ak yeneen yu mel noonu sa man de sama verre ma dindi ko <laughs> léegi takk ko ba mu ne la dindi ko bi patron jaaxal na ma rek waa ah, yow la kët si wax dëgg la léegi <laughs> waa def ñoo terroriser waaw waaw yooyu lay def ak yeneen yu mel noonu may dara de eh, maa ngi maa ngi maa ngi nuyu ñëpp ah di di di di ziar Fatou Ka bu baax a baax di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi di di di di nuyu sama invité d'abord. Mm-hmm. Euh, nga xamante ni kenn dootu ko laajte fii la bokk ci biir kër gi. Mm-hmm. mais tey maa ko cuqati. Mm-hmm. andi ko fa séenee pelloog moom daf may neex muy Mbaye Babacar. di ko ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam euh, di nuyu Cheikh Tidiane Gomis bu baax a baax di la ziar di la félicité démb li nga liggéey rafet na gis nañ ko quand même sonn ga yaa ngi ci terrain bi mais loo ñàkk rek da nga koy jariñoo ah. incha allah waa di la nuyu Fatou ah, bi. Marème maa lay nuyu maa belle chérie maa lay ziar bu baax a baax baa ma kenn maa ngi nuyu ñëpp daal di nuyu sama caméraman yi jàkkaarloog man ah di nuyu maxu sañsakat bu mag bi doomu ndar bi Saint-Louisien billahi maa ngi koy ziar na dox kon kon kon ma xut doxal waaye. ay ca doxal baa ba yaa nga ca. ak ma nga ca. tubaari ngi noonu donc ma nu mu maxul animateur maxul a caméraman maxul a tout instant bi moom moo jàkkaarloo ak Cheikh Diagne Gomis donc mi ngi noonu donc tey ci li nga xamante moo di rubrique jonge munas nga dalal kii di mbay Babacar waaye mu mel ni bu ñu gisee Mbaye Babacar rek dinañ am benn aperçu. ci li nga eh, li nga li nga war a waxtaanee tey ah, waa li ma solug démb. dëgg la dëgg la mm-hmm. Fatou mooy mooy solu démb. Mm-hmm. parce que tey ji démb ak tey dafa différent quoi parce que ñun jéeg yi dañoo gis ne dañuy sol n'importe quoi. Mm-hmm. parce que tamit da gis koo xamante ne en même temps jéeg nga nekk sa biir néegu sëy yaa ngi sol ay sa ay yaa ngi def lii ak lii est ce que tamit doom yeeg doom yi nga xamante ni mooy mooy doom yi naka sudul noonu yi est que léeg du jóge foofu est ce que coow yeeg problème ngelaw yee bagage yooyu est du fa jóge ñu xool suñu maam ñoom naka lañ daan woddoo te teegu dan daan joŋe seeni i jëkkër dañ leen daan bëgg mhm. ca colin woowee mhm. léegi nag ñun nag suñu colin ñuy xool nag nag suñu jëkkër yi tamit ñun lii moo leen gënal ak suñu papa yi li ñu doon wax rek naan Maamoor Anta Sali ñoo jeex ci réew mi mhm. waaye moo tax maam jaara yi bareetuñu ñu fas yéene cee càmbar ma ko ci dal ñu fa yéene cee pelloo mën a moom d'accord sa dex Mbay Babacar euh, chir bitu mu rafet wallaay ndeysaan ñu ngi lay nuyu <laughs> baax. maa ngi lay fay baax soxna Fatka. di nuyu ñu bokk jotaay bi Cheikh na Tidiane maa ngi koy nuyu baax. jëf waay naa ko lool. <laughs> waaw gëj ñu bokk plateau gëj nañu bokk plateau. macha allah rabbi di la jaajëfal di la ndokkeel tamit ci liggéey bu rafet bu am solo bi. macha allah ci wàllu sport. réew mi yëpp ñu ngi la ciy bàyyi xel. di nuyu bu baax soxna Marème di nuyu baax euh, Mounas Balde. macha allah di am mbégte mu baax ci siqaat ak yéen jataay euh, ci àllarba ji tey. Mhm. d'accord ñun tam am nañ la euh, am nañ mbégte ah, bu baax a baax am la ci mercredi bi en tant que invité dinañ sekk waxtaan bu yaatu ak Mbaye Babacar euh, ci kanam tuuti ci li nga xamante moo di rubrique jonge la belle Mariem nuyu naa la. maa ngi la fay Fatou Ka en jubila bisimilah. maa ngi nuyu ami téléspectatrice ak téléspectateur yu Walf TV la voix des sans voix am taatu ak yéen ci seen rubrique tey ci petit déj euh, rubrique mode et beauté fas yéen leen indi lu bees waaye tamit di ñi nga xamante ni rek ñoo nekk ñëpp ci plateau bi ku ci mel ni Mbaye Babacar maa ngi doo gis gisanteeg moom ndax euh, ci télé bi rek laa ko daan gis di nuyu gomi gaajo macha allah di nuyu itamit sama maman ma ma kii bay mun a maa ngi laa ziar bu baax ak yow mm-hmm. la belle aussi Fatou maa ngi laa ziar bu baax baax a baax di nuyu yëpp aussi baax euh, Marie ñu ngi lay fay du moins alors euh, tey euh, nga fas yéene waxtaanee lu lu ma bëgg waaye. lu lu dem Fall bëgg soxnaay Charles René Fall. macha allah muy muy wax. waa tey ñu fas yéene waxtaanee ci biir rubrique mode et beauté li nga xamante ne mooy wax ñu taamu di ko sol ñu yaakaar ni suñu biir réew la jóge or que fi tey ñu bëgg a ñu fas yéene xuus jàll ba ci réew bi nga xamante ni rek fa la jóge waaye tamit uh, ak li ko indi fii nga xamante ni rek mooy biir Afrique mm-hmm. ak tenue yi nga xamante ni rek dinañ ko ci def mu nekk yu am solo yoo xamante ni rek uh, ni ñi dañ koy sol di ci fësal seen taax waaye tamit di ci wane lu bari ci fii nga xamante ne mooy Afrique d'accord donc dinañ ci daal di ñëw léegi nii waaye sama xel day dem bu baax a baax ci waa daaru ndax ni nga tijjee sëni yo ah bismillah inna la ina wali yàlla <laughs> ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di ñaanal maam uh, maam Thierno Birahim ndaamal daaru ah, baax a baax te ànd ak magam ba Cheikh Modou Kara Mbacké Norey ni ñu ngi leen di ziar bu baax ci màggal yi nga xamante moom la ñu jógee ni ki démb alors euh, coach euh, l'international euh, bon tey dama lay xaw a def tuuti sargal rek ah Cheikh Tane Ndeye Mbaye borom tëngéej borom liggéeyu rafet bu sell bi fii ci kër gi nuyu naa la <laughs> jërëjëf Mbaye Babacar kontaan lool ci li ma bokk ak yow ba kii plateau parce que saa ñu daan bokk plateau day neex waaw c'est que man euh, dama doon xool sax naka laa doon depp ñëw jeudi parce que saa yi nekk boo gisee may jeudi non non jeudi dama koy suivre. da nga fiy jaabante jeudi. <clears throat> voilà surtout voilà parce que yow yaa tax euh, que c'est que c'est que li ngay def euh, daf ñuy delloowaat ñun ci suñu ay racines moo tax man ma kontaan ci yow di kontaan di bokk ak yow plateau liggéey rek a wóor. Mm-hmm. voilà bu ma jugee ci yow luy na def. ça va Mahou ça va euh, euh, Babacar Charles ça va Penda Diallo Gueye na nga def waaw Penda waay. tey ngi ci boole grand aada boole ci Cheikh Niass grand aada ba Gueye maa ngi lay nuyu ah boole ci Cheikh Niass ba <laughs> eh. boole ci waale oustaz. oustaz ñoom monsieur Faye nga wax noonu ah. nuyu ma Cheikh Niass. Ah, nuyu ma ko nuyu ma ko d'accord. monsieur Fall. non monsieur Fall c'est mon ami. d'accord monsieur waaw semoon na ami waaye nuyu ma oustaz nuyu ma ci kii. ok ñoom ñaar ñoom nuyu ma leen doo dégg li ma la wax. ah ok oustaz laa lay wax. waaw ñooñu ñooñu ma bañ a. moytu oustaz oustaz Assane nuyu naa ko de na ma bañ a moytu. Cheikh Niass na ma bañ a moytu. maa ko wax ñoom ñaar nañ ma bañ a tu rek. sama yoo xam ne gi nga dama mer nag. Ah. tey jii yëpp Cheikh Niass bu ma moytu rek. <laughs> oustaz moytu ma. nañ ma bañ a moytu rek. Charles la wala non non Charles boolewuma ko. Ah. Charles c'est mon ami. Eh! <laughs> Faal Njaga yaaram tey ba bàkk ko faal bu yàlla faale borom baa bi. non non non ah, ah, ah. tay moom dañoo war a jël pom bu bari saraxe ko nag vraiment. lan loolu lan war a def mais lan mais lan mais c'est mon ami. Eh. waaw. Ah ah mais Charles est mon ami. mais Charles est mon ami d'accord non ragal péete day xañu wërsëg. non Charles est mon ami. d'accord kon maanaam je suis fier de Charles. waaw noonu la je suis fier de Charles. billahi Fall Ndiaga Yaram. am dama ko woon am na lu ko Charles defal lu ma yëngu. mais yow yaay dugg suñu yow mi yaay dugg suñu diggante. <laughs> yow Charles daf la topp maa ngi soo xam ne Charles nëbb nga ma sa bopp. <laughs> nëbb nga ma sa bopp ndax am na loo ko defal lu ma yëgul mais yàlla baax na léegi nuyoo nga ba pare. d'accord léegi non non léegi nag damay ñëw nag ci Marème noonu noir deben kon naat naa ci yow jaajëf waay munaas ay dalla ceer waay ceer ceer maa ngi lay nuyu Mandir Faboy voilà jaajëf waay léegi nag euh, waaw dañuy ñëw rek àggale liggéey bi rek uh-huh. liggéey bi ñu defoon Thiès mm-hmm. moom la ñuy àggali mooy euh, Sénégal est euh, Eswatini xam nga dëkk boobu kenn xam ko sax ci football mm-hmm. ba tax na sax ma mën na mu ko sax to Eswatini Eswatini tey waay <laughs> dégg ak li fa xew ak li ñuy yaakaar ci équipe bi. d' accord dinañ ci ñëw nu mu gën a yaatoo. bu neexee yàlla d' accord incha allah ma ciy nuyuwaale la grand coach di euh, Aliou Cissé wax dëgg yàlla di def <coughs> liggéey bu am solo. <coughs> Euh, suñu équipe nationale bi donc lii moo fas yéeneen. <laughs> bi dañ lay wàcce léegi. li li ma fas yéene nekk. waaw moo di bu tey bu ñu ci tegee yeneen rubrique ki nga xamante ne ñoo ngi ñëw su ma gisee sama xarit ak Aquatera rek ah sama xol bi dafay daal di sedd euh, may gën a am ca waxte donc dañuy daal di ñëw rek ñu daal dem jëli suñu rubrique jonge ayca rubrique jonge euh, la ñu daal dugg nii Salma Ibrahima Fall ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ba di ko nuyu moom itam di ko ñaanal mu tane bu baax baax ah, ba ñëwaat ah, euh, ci ci ci équipe bi rejoindre ñu incha allah ayca Mounas Balde bismillah ñu lay ziaraat ah. mm-hmm. di di di fas yéene pelloog mbay ah ndax ñun fierté la si ñun li ñaan euh, ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la la taala làmp bi. Mm-hmm. la ñu koy ñu fas yéene di sàkku ci moom ak yenn yi nga xamante ne xamuñu ko ñu fas yéene ko partager ak moom mbay mu mel ni tey euh, colka. Mm-hmm. Euh, dafa dafa jëm ci jeex waaye colka dafa réer góor ñi tey jii suñu góor ñi tumuranke nañ ko waaw su ma neexee dinaa ko wax. ndax jigéen dangaa war a polyvalent soo buñ la yóbboo tey ji ñun la solo yëre tubaab rek te nga joŋe piiw war ngaa mën a satisfaire sa jëkkër ci yëre tubaab waaye tamit jigéen ñi nanga nangu ni sama polyvalent dama koy partagé ci col ko démb mhm. waaye dinaa indi sama col ko tey ndax jéeg boo joŋee rek joŋe du kawlal ba du néeg du parfum du cuuraa rek ñu lay manoté di la def lu neex joŋe buñ ko dee wax da ngay joŋe ci parti yëpp mhm. bu vendredi di jotee wala bu lundi di jotee sa jëkkër gis la nga tegle sa ñaari kol daal di def sa mël fa bu rafet daal di mhm. takk say verre la loolu dañ koy bëgg mhm. léegi lan moo ba ba pare loolu mbay dafa doon loo xamante ni dafa gën ndax euh, ndax du ñun la yàlla dafa sàkk jinne sàkk doomu aadama te ku ci nekk dégg li mu wax ba ba sóoratul jinne rek dafa am. Mhm. léegi imagineel que ngay sol lu bon di sol loo xamante ni naka su noonu la chaque jour ngelaw mun na laa dugg leneen ak leneen mën na laa dugg surtout ma jigéen yi nga xamante ni dañoo dañoo dañoo wan lor euh, jigéen bu wannee lor est ce que war nay solo n'importe quoi parce que da ngay gis jigéen bu wan lor léegi di sol ay sofees di sol lu ko neex ci biir këram. Mhm. mais est ce que loolu doon na lu gën ak suñu yaay ñoom naka lañ daan soloo ak suñu yaay naka lañ daan léttoo. ba suñu papa yi seen mbëggeel daawul jeex seen xel dañ leen seen xelaat yëpp dañ ko daan def ci suñu yaay yi benn comportement la suñu yaay amoon jeeg biir këram. jërëjëf soxna Mounass macha allahu rabbi nga indi loo xamante ni lu am solo la. Mhm. loo xamante ne nii mooy cëslaayul géppuk tedd nga ak géppuk mbaax ci jigéen. Mhm. muy aw solin. Euh, damay faral di wax ne réew mu wàcce sa mbatit mhm. saw ñooñ di lakkit te seen njariñ du ebbi ci gillit euh, soxna munaas mhm. sër sër yal na ko yàlla yërëm amiin waay ko yàlla yërëm ndeysaan sër mhm. mm, moom sër kër goo dugg di fa wër sër yàlla boo ci xër. Mm-hmm. dina na la mër. doo ko gis. sër. Euh, munaas yàlla dafa dafa teral jigéen. Mm-hmm. jigéen yàlla daf ko teral. Mm-hmm. yàlla daf ko suturaal. jigéen parce jigéen mooy àdduna. kër gu jigéen newul sax googu kër du neex mooy wéttalu ngor ci àdduna mm-hmm. ay maami maam way nañu leen ay réewi réew kañ nañu leen mm-hmm. jigéen mooy garab guy meññ ay doom yu neex mm-hmm. te kër ga féex te yaa nga gis sol ni ko ni ko ni ko ni ko réew mi moo woon ci jigéen mu méngoo ak ni ko suñ borom bëggee woon ci jigéen mu méngoo ak ni ko suñu borom bëggee ci jigéen sëriñ Moussa dana jigéen du sol coluk fetal sol loo xam ne danaan xiit na racc na ràng xàppatiku ngay dox di woggantiku te ngaa soloon lu jot rek far benn noppaliku nga gis jigéen ndeysaan bu njëkk ci sunuy baax euh, Cheikh Tidiane jigéen bu mosaan a tënju. almaxtum mhm. tënju. Mhm. tënju mooy nga jël sab sër yéegal ko ba ci kaw. Mhm. bàyyi ko ba mu egg ci sa kaw yu ween nga fas ko. bu ko daan def jigéen bu ko mosaan a def. nit du ko teg bët. tënju rek danaan nii rido bi yër ba kenn du nekk ci ëtt bi te buy sangu la koy def. du gis kenn. mu laqatu ndànk daw. bala koo kenn gis mu tënju tënju rek laa la wax nga xam ne dina egg ci sa. ci sa bëti woom mm-hmm. egg ba ci sa kaw dënn jigéen bu mosaan a toog ba sëram rëcc ko tënj boobu rëcc ko ay weenam génn mm-hmm. danaan wuy sama nday yàqu naa danaan wuy yàqu naa mm-hmm. ñu ne ko lu tax parce que xam na ne weenam wi génn bët tege ci mooy ak yàquteem parce que boroom xam-xam dañuy wax ne jigéen weenam bu ci weñ toŋee wàllu yu du ci nàmp baax na jigéen bu weenam génnee bu ci weñ toŋee wàllu yu du ci nàmp mm-hmm. te wàllu yi ñu ngi tiim jamono mm-hmm. di xool jan jigéen moo leen war a jur jigéen du ay caaxaan de jigéen du ay caaxaan góor gu baax ak jigéen ju baax ñooy jur doom ju baax waaye camuk jigéen ak mbii fañu góor mm-hmm. tuuti suwaay sunu mag ñi dañoo dañoo dañoo amoon sutura. Mm-hmm. ci seeni cër. dañ daan dañ daan dañ daan léttu léttu rafet. ay léttu ay nguuka. Mm-hmm. wala ñu léttu ay jeere. Mm-hmm. def ay sàddu nas ay peme. takk ay téqal ma. sol ay ay ay ay mbubbi baaxa ay grand mbubb da daan gis koo xam ne dana sol ñaari grand mbubb wala ñett. da daan sol. dessous day takk cité sol dessous teg ci euh, camisole mhm. teg ci ak gëbëj doog cay teg grand mbubb ak ndoget ndeysaan mhm. xoolal takk cité sol dësu mhm. dësu dësu yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm daa manqué ci réew mi amatut dësu xàpp xel la def léegi waaja dafa tàggu jabar ji ne ko damay dem gàmmu fekk dafay dem seeti mami wallaay ndeysaan mu dem fanaan ci kër ga summi garam bi wékk summi turki bi wékk euh, bi mu fanaanee ba fajar gi ndekete ndeysaan mu mu jaawale turki bi ak dësum dësum ndaw si oh. sol ko <laughs> ko ca waaw dem ci kër ga bi mu ñëwee ci fajar gi naan se nijaay mbaa gàmmo gi mu ne ko gàmmo gi tubar fa kàlla toj naa gàmmo ga na ko moos summi garam bi dese dësu bi soxna su ne ko waa nijaay gàmmu ak dësu mun a tekk tiit ne ko waaye danuy gàmmu gàmmu gi xumb am jaaykatu dësu bu fa romb rek jàll dësu yi ne ci solo dësu yàlla nga gis ak yonent bi eh, eh, eh. ma solo la ci ab dësu jonge wallaay ndeysaan mu mu mu mel ni jonge fa lay commencé waaw jonge xam nga la fexe li ma ko gisee mooy fexe na ba jubóog jabaram mm-hmm. ci teggin waaye ci ak yiw ci ak ana bu doon tey ji weex boobu nga naan ma ay ngat mais la non munaas <laughs> oh, oh, waaye munaas déglu yow déggoo wax ah, da nga wax eh. dégg nga mu ne kooku weere na waaw weere non non looy kii bi mooy desu bi a waaw loolu la na de. waaw daa léegi léegi kër si boo weeree noo war a def est-ce que da war a ñëw di fuuy. ma ne eh suite bi. Ah. ay suite bi tey mu neex. wala walaay ndeysaan suite ah. <laughs> eh. nga gis nga gis sëriñ sëriñ daan mm-hmm. daf daan woddoo mm-hmm. toll ci daanaka ñetti sër wala ñeenti sër. Mm-hmm. walaay ndeysaan ngir rek suturaal boppam. waaye gis nga fi jamono toll fi jamono toll te gis nga col gu jot ci jigéen mm-hmm. dafa bokkoon ci liy aar góor ñi mm-hmm. dafa bokkoon ci liy sàmm seen góor a dégg nga loolu gu bari gi nga gis ci réew mi ak fa yaatu na mbay yëg nga ne xawi ko jigéen ñi ñoo nu ko yóbbee ak lu leer nga wax foo teg loolu mbay mm-hmm. waaw xam nga bët day toox mbir moo xam ne da ko koo mbaa nga bëgg ko doo deñ mukk ci du jóg ci sa nagu bët bu yàggee danga ciy tuux dëgg la xanaa xamoo ne bu njëkk jigéen daana jaral góor mm-hmm. mu liggéey ba dee mm-hmm. bari na ñàkk jom gu nu dal ci ñun góor ñi jigéen ñoo nu ko yóbbee ci naka man kenn ci naka bi rek laa bëgg xam waaw gis nga góor dafa daan namm cëri jigéen cëri jigéen da ko daan jafe ay jamono yàggu rek ci ginnaaw. Mhm. soo mosaan a gis yel ak jigéen da ngay daw bu bëgg a dee. Mhm. doo nelaw léegi xoolal li góor ñi gis ci jigéen. Mhm. ndeysaan da nga bëgg jigéen baayam liggéey loolu fukki at ngir may la ko. fukki at yi doo ko yëg sax. day mel ni ñetti ñaari fan ci yow. ndax bëgg gi nga bëgg jigéen ak yàkkamte gi nga yàkkamte pour jot ci. waaye tubarkàlla la nga demoon ci jigéen yëpp góor. même amagoo jabar da ngay toog ci mbedd mi rek yow wital sab sees toog boo mel ni Tapha Ngom daanaka rek ndeysaan dënn moom bët bu set nga gis ci lu bari. balcon yi. wallaay ndeysaan euh, ay ñaari sax nga gis ay teppaxu ay teppaxu. teppax yi day génn waaw. waaw waaye mbay léegi boo génnee ci mbedd bi ñiy sol su. waaw yenn mhm. saa yi. bàyyi mhm. mooy bàyyi affaire yi nga gis ku sol baa mu nataal léppam. nga gis ku sol toog ci oto nga gis yammat ci ji génn. waaw yooyu bu yàggee waa eh, kii eh, eh, yow. Mhm. yow lan moo waxal tey ji yooyu am ay teppeeku yooyu am. dégg ay yu gàtt ak ay nangam yow lan moo ko waral lan. li ko waral lenn la rek Moustapha kii Cheikh Tidiane. mooy toppandoo mhm. amut leneen danoo jëggi leneen lu dul yiw jëfe mhm. xay jafe ma ko wax ci benn taalif boo xam ne ko tuddee roy dàq mhm. ma ne nanuy xelu tey mooy njombe boole di càmbar ak di nattale waroo gi am ñun ak tugal ci ni ñuy dunde baax di di baax ñu jëlale jëggi lu dul yiw jëfe xay jafe mu di toppandoo bu yàggee sànq nañ moonu sànq waa léegi yow tamit eh, dama ne est-ce que mhm. loolu tamit ñun mhm. góor yi ñun duñu responsable mhm. ci ci euh, mbir moo parce que ñun ñii léegi ñun yooyu ngay wax yooyu yooyu suñuy maam yi daan sol yooyu noonu ñun xoolatuñu yooyu de nañ waxante dëgg rek ñi koy ah <laughs> ñun ñii boo xoolaatee quatre-vingt-dix-huit pour cent de euh, jeunes ou bien ñun ñii xooltuñ ñun xam la ñu xool te peeku yi la ñuy xool de eh, kii yu gàtt la ñuy xool parce que yooyu ñu saf yooyu boo fi solee leneen xam lu ñuy wax eh, kii de seer la mhm. ki wàcc bees la mhm. est-ce que duñ ci ñun mhm. ñun góor yi ñun ñoo puus suñu jigéen ñi bàyyi baaxu maam indi tey jii colinu tubaab parce que yooyu yëpp ay colinu tubaab la dëgg la ci lu wér waa xam nga ñun ñëpp dañ ci am part de responsabilité mm. ñun ñëpp dañ ko ci am waaye mbaax du ràpp te gis nga góor li mu gën a bëgg moom la gën a bañ dëgg la jigéen faw mu yeewu ci loolu góor li mu gën a bëgg moom la gën a bañ. Hmm, ci naka mhm. dafa bëgg lu sexy moom la bëgg. moom la gën a bañ. moom la gën a bañ naka. lu de bañ. loolu loolu mu demee noonu. na jigéen sol taay baas. Mhm. ak ndunkurukam di feeñ. waaw fer ya ca kaw di feeñ. mu sol jumbax awut. jumbax bi di feeñ. waaw mu sol euh, ci. Euh, lii di lii di feeñ. <laughs> waaw dañoo wax ween yi mu romb la nga bëgg ci lool. Mhm. ñaare bu ko sa jabar defee rek nga xaw a mer. Mhm. mbaa sa doom ju jigéen. Mhm. li ëpp ci góor ñi bëgg lu baax laa wax. dëgg même soo ko bëggee intérieurement. te ñeme woo koo wane mbaa ñeme woo koo manifester. soo ko gisee sa jabar def ko. ak ndungur kam di feeñ. mu génn tafaangoom di ko xool. soo sàggantu rek du la neex. est-ce que loolu du hypocrisie waaw parce que mënuloo toog ngay yow yow ngay dem ci yooyu. dégg nga nga am sa benn coxo muy sol yooyu nga bëgg ko ci loolu. Mhm. yu yu yu yu yooyu. Mhm. nga ñëw ba sa sa jabar ba nga bu mu ko sol waaw waaw. est loolu du yëfu naafeq. waaw kay waaw kay. moo ci réew nag waaw waaw du naafeq dama laa wax ci njëlbeen la góor li mu gën a bëgg moom la gën a bañ maanaam loolu mu loolu mu bëgg su ko gisul du ko def dara su ko gisul du ko def dara. ma jox la ci benn exemple boo demee ci alxuraan nga dégg ñu ne la yàlla lim gën a bëgg lim lim lim lim daga daa daganal dara ba pare bañ ko. Mhm. yàlla moo daganal fase waaye da koo bañ loolu mooy diggante guur ak jigéen gis nga loolu su mënta su su ñàkkoon moo la gënal yow. su yow koy dem di uuti. déglu rek ma wax la su amutoon gis nga góor ñi bëgg lu baax ñëpp. Mhm. ñaare suñu demee bay takk soxna duñ takk ci ñooñu nga xam ne kon nga xam ne kon yow loolu nga bëgg noonu mhm. moom nga bañ mooy bëgg na lu bon mais bëgg nga ko bëggul am lu bon xam nga dafa am foo ko bëggee moo tax mhm. Babacar affaire boobu affaire may ma ma ñëw ku ne de may ma rek ma ñëw ku ne de wax boobu may ma rek ma ñëw amoon na bu njëkk ba Cheikh Tidiane may ma rek ma ñëw mais léegi wàññeeku may ma rek ma ñëw xam nga lu tax xam nga lu tax xam nga lu tax hmm. dafay am ñaari baat yu ñuy jaawale moom moo indi loolu mooy jekk ak jaadu xam nga jigéen boo leen wéetee ci néeg te mu lew la nu mu def mu neex la hmm. waaye neex googu mu la neex ci biir néeg bi dafa faa jekk ba pare jaadu fa neex googu mu la neex ci biir néeg bi moo la topp ci mbedd mi neex gaa la topp ci mbedd mi comme jaaduwul ci mbedd mi nga gis ko fa hmm. neex gi dalay topp hmm. neex gi dalay topp ci mbedd mi mais jaaduwu fa dafa jaaduwul jekk jaaduwu fa waaye neex gaa la topp moo tax bi nga ko gisee ci mbedd mi neex googu continuer ci yow. lu baax. yaa ngi may dégg. bu baax waaye jaaduwu fa waaye comme bu bu jaadoo ca biir jekk fa daf lay neex neex googu moo la topp ci biti ba bi nga ko gisee ci biti donte jaaduwu fa mu jekk ci yow neex ci yow. mais Babacar. waaw euh, mais jaaduwul fa. waaw d'accord nangul ma leen nangul leen. Mhm. mooy tey jii yooyu yi ngay wax. Mhm. dëgg la de li ngay wax. Mhm. mais c'est dama la bëgg gëm la dama la bëgg a wax léegi tendance bi. tey jii non non xool ma gépp mu nekk yow li ngay wax nii. xam naa bu baax loolu moo kii de mais tendance bi. waaw dama ne la. léegi xale yu góor yi. comme li ngay wax noonu. ay bañ yaa yàq xolal gëmuñu xolal gëmuñu ko. dañuy ñëw seen kër naan non non et eh, ma non mais ñoom ñooy dem wuti ñooy dem xooli mais euh, Mounas euh, coach li muy wax nii ak Mbaye Babacar li li li muy wax li ma si li ma si appuyer mooy euh, comme li Mbaye Babacar góor bëgg man ni ma ko mën a tënkee reformuler ko mooy bëgg góor bëgg na lu bon mais bëggul am lu bon mhm. parce que tey jii nii bu ñu xawee génn ma joxe exemple rek ñu xaw a génn tuuti mhm. ci colin gi mhm. dangay gis góor goo xam ne mi ngi nekk benn xale bu jigéen di fa moom matin midi soir ñu nekk ca la ka neex mais bu heure takk jotee day dem xoole ka nga xam ne moo toog ca ca ca takk ko dugal ko ca ca ca ca biir këram muy rejoindre li nga xam ne moom la mbay mbay Babacar di di wax léegi nii mais ba tey munaas mais pourtant dama lay wax sax benn exemple rek mhm. tey ñaari jigéen bu romboon fii ci mbedd mi di dem mhm. kenn ki sollu jot muuru mhm. ki ci des sollu sexy bee neex na la mais pourtant buñ la buñ la doon voteloo ki ki muuru ngay votel parce que respect bi nga ko jox ak cër bi nga ko jox ak ni nga koy rusee ak ni nga koy wegee ak ni ngay njorte ne ni ngay njorte ne jigéen ji jigéen ju baax a baax a baax la du fekk kee. Mhm. lu tax loolu. Mhm. lu tax loolu. te pourtant lee neex na la de. lee sexe bi mhm. neex na la de. mais pourtant respect bi nga jox kii. ki muuru. sol lu jot te yiw. respect bi nga koy jox ak wegeel gi ngay am ci moom ak ni nga ko ruusee. ak ni nga koy bëggee. ak ni ngay njorte ci moom mbaax. du fekk kee te pourtant kee kee kee def neex na mais man solution bi ma gis mbay mooy. est kon jotul li ma la wax jigéen day polyvalent. jigéen day xam boppam. xam nga li ma la wax bu sa jëkkër bëggee yëre tubaab sol ko ci nam ko bëggee bu bëggee yëre olof nga sol ko ci nam ko bëggee mais bu fekkee da nga ne man du ma sol yëre tubaab kese. déedéet mën ngaa sol yëre tubaab mais yëre tubaab mën nga ko sol te du ñaaw yëre tubaab ah, mais mais xam dañ koy col colin wu ñaaw. looloo tax ñu leen di ñu leen di wax. Uh-huh. parce que tamit boo génnee dafa am yeneen góor yu lay xool tey yow mal xiyaam li ñaan bër sàq tuddul bër sàq bar sam sàq la loo ca def doo ko ca fekk mhm. te réseaux sociaux yi dañoo nekk loo xamante ni da ngay gis ku jël pëyam jëmale ko mhm. ci réseaux sociaux yi te loolu amul woon mhm. waaw léegi parce que tamit boo am na nooy mel rek man li ma am na melokaan booy mel chaque jour rek bu ñu la fotoo wala ñu filme la doo rus mais am na melokaan yoo xamante ni bés bu ñu la photo jël la publier ci réseaux sociaux yi mhm. yaa ko teg sa bopp d'accord ci réseaux sociaux yooyu lañuy la ñuy jeexalee waxtaan bi euh, munaas ah mu ni tey moom waxtaan bi daanaka la ci ëpp Mbaye Babacar ak coach fi ñu ko péelloo waaye comprendre nañ leen mais Mbaye day ñëwaat insha allah ah, parce que lii moom dafa neex a neex boo jeex donc Mbaye <laughs> jërëjëf Sénégal changé na de waaw waaw xam nga nit day sagal boppam nit day suturaal boppam yàlla moo sol lu jot te jekk te rafet. d'accord du tee góor ñi bëgg la. Hmm. du tee góor ñi nopp la. <laughs> du bëgg la du góor ñi nopp la de. jigéen ñi yeewu leen góor ñi leen di wax naan leen. Hmm. booy sama rak toj nga fi ay nangam nangam bu soo dan lay nax. dañ lay nax solal lu jot. lay nax ay góor gu baax. Hmm. mooy ñëw takk la. waaw Mbaye ayca Mounass ñu yow aussi ñu ngi lay waxtu bi moo ñu tënk Mounass billaay dañ lay remercier yow bàyyi la nga tàggoo waaw beneen yoon mooy dàq bu baax incha allah ñu ngi ziar ñëpp rek bàyyi ñu kenn di nuyu ñëpp di di kontaanaan ci yow bu baax a baax d'accord maa ngi nuyu bu baax a baax samay dooma bébé bu ndaw sama xarit boobu nga xam ne daf maa bëgg ndeysaan te amu ci benn benn benn demi mesure ak ki nga xamante moo di Cheikh ak keneen ki Mounass nu mu tuddati Cheikh ak Adama ak Adama voilà mu ngi noonu donc ba ah Mbaye yow ko tàggoo tàggoo. non yow suba di nga tàggoo jeudi ngay tàggoo jeudi ngay tàggoo <laughs> jeudi ngay tàggoo incha allah ñu dem jëli rubrique <laughs>